asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ngone Ndione euh, di présidente mouvement des femmes de FAGSEM FAGSEM fédération des associations et groupement des sénégalais en Mauritanie moo nekk fii ci Mauritanie nga xam ne le président Assane moo ko jiite waaw man maa jiite jigéen ñi FAGSEM bu njëkk ba ARSM la tuddoon ndax euh, sénégalais dañu nekkoon fii xamuñu fu ñuy jaar xamuñu fu ñuy teg seen tànk ñu sos kuréel gi tuddee ko ARSM ba muy nekk ARSM nag président Assane Gueye moo nekkoon président commission sociale moom la yore woon mu yore ko mais maanaam yor bi sax euh, mënoon na ne moo doon doxal lépp président social la woon mais moo doon doxal lépp président ba ci boppam daf ko livré woon muy doxal lépp ndax président ba bëriwul woon jot bi ñu demee président Assane fi mu nekk nii def na ñaari mandat lu ko waral mooy liggéeyam bi ñuy defar fédération bi nag dinaa ne sëñ Sidi Mbacke mu sëñ Moutala moom moo njëkk a adhéré ci fédération bi sëñ Sidi Mbacke moo njëkk a ci fédération bi moo tax macha allah boobu ba léegi. tànk kanam rek la am fédération bi amul tànk gannaaw fédération bi dafa ëmb association yi nga xam ne daayira yi association yeeg daayira yeeg fédération daayira yeeg euh, murid yeeg tijaan yeeg lépp la ëmb fédération bi FACSEM mu ëmb association yi daayira yeeg lépp la ëmb bépp association boo xam ne bii mu ngi ci dëkk bi bëri na ñi nga xam ne dañoo ñëw adhéré ci biir FACSEM bépp association bi fi nekk ñëw na adhéré si biir FACSEM ëmb na lu mat quatre-vingt et quelques association moom la fédération bi ëmb président Assane Gueye jiite ko mu am bureau nag fédération bi dafa am bureau bureau bi par commission la commission secrétariat mi nga fa commission d'organisation commission sociale religieux commission extérieure lépp la am social bi compliquer na lool ndax fii Mauritanie social rek a fi am sociale bi dafa bari compliqué ndax euh, jafe-jafe yi sénégalais di dund fii moo metti moo bari moo war a social bi metti nga xam ne seeni saw moo ko jiite ak maman Sarata jaata ñoo jiite commission sociale bi organisation bi Baye Cheikh Gaye moo ko jiite religieux bi Baye Kalidou secrétariat mën nañ ne Pa Abdou Ndiaye moo ko jiite woon buuba bari ak euh, ñoom Fatou Diémé ñu nekk si ñu am commission de finance fàtte woon naa ko waaw finance bi ko ko jiite woon nag dafa dem Sénégal mais ñu topp ci ñoom ñu ngi fi ñoom Ameth Thioub ñoom Modou Gueye ñoom Abikoli ñu ngi fi ak Cheikh Ndour mooy trésorier bi le trésorier c'est Cheikh Ndour mu nekk commission bi dañu am commissaire commissaire commissaire au compte lépp def ci am c'est un bureau boo xam ne bii macha allah bu tegu ci yoon dañu dem assemblée nag ñu fal leen président Assane dafa jeexal mandat ñu demaat ñu falaat ko amul sax ku muy concurrence amul concurrence ndax liggéey bu rafet. par deux ans mandat bi gaa jeex na sax waaye xam naa bientôt war nañu demaat. xam naa ne bu ñu demaatee bu ko soxlawaatee it da koy jot ndax liggéeyam a rafet cas <laughs> yi ñu dund bëri na te metti na cas yi bëri na metti na cas bu nekk nag cas boo xalaat mi ngi fi ndeyloo moo jiite chaqaala yi chaqaala ci naar mooy liggéeykatu kër yi bëgguma wax euh, mbindaan ndax mbindaan daan sa doole la duma duma bëgg di faral di utiliser la mot mbindaan mooy jigéen ñi daan seen doole les femmes de ménage ki ko it ki ko jiite di ku ku farlu ku organiser wu dajale leen boot leen ku ci bëgg min euh, jànq boo demee ci moom dana la jox jànq dana xool fi ngay liggéeyee dana xool noo tooge dana xool niñ lay utiliser waxaale ko teg ko ci yoon yor association nag di ko doxal di def ay réunion di def ay cotisation di def ay financement am di leen teg ci yoon depuis loolu am ba léegi lu bëri dafa wàññeeku ci côté boobu ndax côté boobu dafa bëri woon ñu ciy jël liggéey loo leen ba weer dee duñ leen fay jiñ leen sàcc jël yóbbu leen prison tëj leen cas yu bëri am na fi mais léegi moom macha allah dernière fois rek le 26 passé bi ñu demee journée de solidarité et des détenus macha allah fekk ñu fa jigéen boo xam ne bi accuse de vole la te accuse de vole yooyu yëpp liggéey loolu a weer wala fay duñ la fay. moo ko doon waral mais bi ñu xamee ni ñii am nañu wéeruwaay ba léegi moom ñoom côté boobu moom macha allah am nañ ci tuuti jàmm beneen côté bi mooy côté social bi fii ku fi génn àdduna dañuy jóg taxaw fexe Baye Cheikh jóg taxaw ñu woo sénégalais yi fexe ba jël yóbbu la say mbokk ñu jébbal la sunu boroom ku fi feebar ñu war la évacuer président Assane day ñëw taxaw communauté bi ñëw taxaw ñu jàppale la ba yóbbu la ci say mbokk bu dee ni fii la waxi nopp ku ci am problème police tribunal duñu yendal duñu fanaana président Assane day dem taxaw ñu taxawu la bu dee tribunal dañuy ñëw taxawu la bu dee police ñu dem régler problème bi ba nga am jàmm barki démb ñetti police la ñu yendu ñetti police ci ay cas yoo xam ne yi bu ma ko waxoon fii sax da ngeen di jommi mais macha allah président Assane Gueye di liggéey liggéey bu am solo ramasse bi da doon metti lool tar dañ leen di ramasse mais day jóg taxaw dem ci kilifa yi wax ak ñoom du bëri du bëri daal dafay wàññeeku lu bëri wàññeeku na ci dëkk bi mais grâce au président Assane Gueye ci biir kuréel bi la Assane amul vie familiale amuko ko xëy ci sénégalais yi di ci yendu di ci gont ba xaaja guddi bu toogoon di lekk léegi léegi nga woo ko mu teg kudd ko jóg dem billaahi wallaahi man maa ko wax te boo génnee léegi boo buggee boo génnee ñu dem nga xool ay quelques personnes rek nga laaj leen dañ lay wan rek mun nañoo taxaw ne la ne la demal laaj ñee boobaa di nga dégg liñ lay wax ndax lu amul sedd neexul dañ ko koy seedeel ndax dafa sonn ci sénégalais yi. fédération bi ak ambassade ay partenaires lañu ambassadeur macha allah euh, son excellence Moustapha Ndour ñu ngi koy nuyu de passage ak euh, collaborateur am yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ay partenaires lañu. ubbil buntam la fédération surtout le président Assane Gueye cas bu munti am ñun bu ñu demee ba sës ci la ñuy dem ambassade. cas bu am buñ ci sësee la ñuy dem ambassade te macha allah mun naa ne bëriwul cas yu jaaxal président Assane ndax lan président assan nag ni mu mel si dëkk bi liggéey moo ko may autorité mauritanien yi fii amul ku xamul Assane Gueye di commissariat yi di fu mu munti doon problème bu mu munti doon amul ku ko xamul autorité yi fii jox nañ ko cër te muy nit koo xam nag nag nit ku fonk boppam la nit ku respecté boppam moo tax ñu jox ko cër respecté ko fii ci dëkk bi Mauritanie gi ñu nekk fooy taxaw ne Assane ngay amul ku ko xamul collaboration am ak ambassade bi nag moom muy loo xam ne lu dëggu la muy loo xam ne lii lu wér la waaw moo tax euh, ba ambassade communauté bi daf ko yombalal liggéeyam bu bari daf ko ko yombalal ndax am na yoo xam ne yi ñoom mënuñu faa yegg communauté bi moo fi mën a yegg muy président Assane ndax xam nga admi affaire administration moom dafa xaw a doy waar Euh, ñu sant yàlla bu baax di gërëm le président de la république Ghazouani ndax bi mu toogee ba léegi moom macha allah mun nañ ne ñu ngi sant yàlla jàmm ji bëri na lool. relation Mauritanie ak Sénégal ñuy ñaan yàlla rek mu gën a jëm kanam ndax relation bi moom fi mu nekk nii diggante bi moom rattax na lool rattax na dañuy nekk ci dëkk bi nag dañuy gérer dañuy yor suñu liggéey di liggéey. li ñuy wax mooy boo ñëwee dëkk jaambur da ngay tënku ci sartu dëkk bi boo ci tënkoo rek doo am problème dëkk bi fii ñu nekk ni di ni nga tënku ci sart yi mooy li ñuy wax toujours sunu mbokk yi boo ñëwee ci dëkk bi tënkul ci sartu dëkk bi demal ci sa ambassade nga defal sa carte consulaire ñu xam ni yow ñëw nga ci dëkk bi ndax foofu mooy sa kër bu ko defee ñu xam ni yow yaa ngi ci biir dëkk bi bépp tolof tolof boo am mu nga dem wuti sa ambassade wala nga dem jege sa communauté bu ko defee dinañ la mun di taxaw ñun nag ñu ngi liggéey macha allah di tënku si saatu dëkk bi amuñu benn problème wax dëgg si yàlla ci sunu côté liggéey waaye du ñëpp a yem du ñëpp a yem ndax euh, man du ma ne awma problème rek kon kenn amul problème déedéet problème yi bari na lool ndax lu fi ëpp ci côté informel bi li ñuy liggéey moo tax fu ñu toll dañuy jàppoonteel ak ay jafe-jafe bëri na fi jafe-jafe yi bëri na côté maçon yi côté jànk yi côté côté côté côté côté côté côté bëri na waaw. am na yeneen ñi nga xam ne ñu ngi si yeneen kuréel du ñu jege si fédération bi du ñu jege association yi te loolu dañ leen koy tere boo demee ci réew demal jege say mbokk mooy association yi ndax association yooyu ñoo ñëw adhéré si biir FACSEM ndax bu ëllëgee lu la munti dal fi nga jege. dinañ la dimbali bu ñu mënul ñëw ci fédération bi ñu jàppale waaye boo ñëwee si dëkk bokkoo ci dara faale woo dara faale woo kenn ngay dem sa demu bopp boo nekkee si tolof tolof daw ñëw wut si ñu tamit dafay xaw a metti dafay metti lool te am na ñu ko am na am na fi ndax du ñu ne sénégalais yépp ñoo nekk ci biir fédération bi am na ñu xamul nan la ak naka la mais alhamdulilah Euh, fi ñu jëlee fédération bi ak fi ñu ko andi tey wóor na sénégalais ndax macha allah bëri na fi mu nekk nii ñi nga xam ne nii dugg si nañu si biir fédération bi ndax lan manque de communication dafa amoon manque d'information dafa amoon biñ ko jëlee ba léegi di communique di sensibiliser dañuy sensibiliser biñ ko commencé ba léegi. Euh, am na changement bu bëri bu ci am ndax FACSEM fi mu nekk nii fi mu toll nii dara munu koo téye tey dem rek <laughs> te mi ngi dem macha allah. pour nga accéder ci fédération bi da bokk ci association maanaam boo ñëwee association bu nekk am na ndax dëkk yu bëri ku ci nekk am na association séeréer yi joolaay gànjul gànjul yi euh, euh, bokk gëm bokk bokk yaakaar bëri na tur association yi. waa aag bi tour association bu ne am na ñi nekk géej ah les social les travailleurs association yi boo ñëwee nekk ci dëkk bi xoolal d'abord foo bokk ba xam fi nga bokk yoon nañu association nga dem bokk ci ndax association yi ñoom it dañoo am seen lu leen tënk dañuy am seen réglement intérieur am seen bureau di def seeni réunion di def seeni cotisation bu ñu defee loolu ba pare nag da ngay ñëw biir FACSEM pour adhérer booy ñëw biir FACSEM pour adhérer li ñu lay laaj mooy da ngay andi sa biro defar benn lettre de demande pour adhérer biir FACSEM boo defee lettre bi nga ñëw yóbbu ko président président bu lii lay lettre bi bu la ko accordé signé la ko yo envoyé la nga dem ci trésor trésorier soo demee si trésorier nga daal di eh, joxe sa 5000 wugee adhéré ñu jox la sa reçu weer bu nekk dañuy cotiser nga ñëw cotiser lu xew dañuy woo association yi ba bi fi président Macky Sall ñëwee mayoon ñu fi 10 mille euro tombe Covid bi ñëw association bu nekk dañoo dindi jox la pour nga dem xool sa association loo am nga dolli si pour nga mën a dimbale sa waa association ndax boobu metti woon nag kenn liggéeyatul woon loolu lépp FACSEM def na ko di def ay organisation tamit yu bëri ay ndimbal fii ci Covid bi euh, fii Mauritanie président bi. mayoon nañu kit yoo xam ne yi pour cent familles may ko fédération bi bi mu ñu ko joxee dañ koo jël séddale ko association yi séddale ko néew du doole yi séddale ko néew du doole yi bu boobu weesoo yu bëri bëree bëri dañ koy def man mouvement des femmes laa jiite muy jigéen ñi ñaaw na jafe na ndax euh, bu njëkk niñ daan dundee ak léegi du benn nga xew ci jamono bi léegi dafa ñaaw dañ koy ñaawlu ndax man man dama gëm sama bopp moo tax ma bëgg ku gëm boppam man fighting rek laa gëm du ma gëm bëgg ku gëm boppam man gis nga bu ma gisee ku gëm boppam man dama lay bëgg jigéen dangaa war a xam sa bopp am valeur xam yaay kan xam looy jar mais jamono ji léegi dafa yàqu ba nga xam ne xaalis di leen a jaral lu ne xaalis moo jaral nit jaay ngoram te mooy lu ñaaw dañuy ñaawlu bu baax a baax a baax li nga xam ne xale yi ñu ngi koy def léegi ñaaw na lool éducation bi nañ ko xoolaat réseaux sociaux yi mi ngi yàq xale yi mi ngi yàq àdduna bi li xew temps yi vraiment dafa ñaaw man mënuma ko xool billaay mënuma ko xool ndax dafa ñaaw ndax lan alalu àdduna lu ko fi jar alalu àdduna alal bu salte boobu dara jaru ko dara jaru ko fi ñu ngi ñaax sama mbokku jigéen yi ak sama rakk yi samay mag ak ñépp ñu ngi leen di ñaax vraiment lu bon li nga xam ne ñu ngi koy dund di ko def nañ ko bàyyi ñu gëm seen bopp xam lu ñuy jar fii Mauritanie de ñi fi nekk ñun ñu ñu ëmb ñu ngi leen di ñaax fu ñu tool te man kuy xool ci man bari naa ay idole te man ku ku ku ma ne man sama idole nga rek li ma lay njëkk gëmloo gëma sa bopp liggéeyal gëma sa bopp ndax nit moom xàcc boo gis wërsëgu borom foo nekk sa wërsëg fekk la fa looy liggéey lu mu tuuti tuuti tuuti sa wërsëg dina la fa fekk te di nga ci suturaalu fii nag du ñu ne ñëpp a baax du ñu ne ñëpp a baax ñu bon ñi dañu yóbbaale ñu baax ñi waaye it bëri na ñu baax ñu baax bëri na mais toujours dañ leen di ñaax rek bu leen dugg ci li ngeen wartu dugg bu leen def lu bon bu leen dara jaral dara bu leen alalu àdduna fëkk bu leen alalu àdduna yóbbu man fu ma toll dama koy wax ak ñoom man man man de ma part bi may nekk côté Médina 3 fële dëkk bi ku fi ñëw ñu naan ndaxaat man restaurant laa yor dinaa la yóbbaale semaine di la jox añ di la jox reer semaine dama lay yóbbaale dama lay yóbbaale ñoom yóbbaale lañ koy wax dama lay jox añ jox reer une semaine nga commencé liggéey daal di commencé dem mënal sa bopp kuñ fi taseel tamit ci dëkk bi gis ni yow amoo foo nekk wala da ngay doog a ñëw amoo looy lekk wala amoo looy naan wax dëgg si yàlla dañ lay dimbale dañ lay dimbale nuñ la mën a dimbalee léegi nag jamono ji dafa xaw a doy ndax di nga jël nit mu ñëw jooytu la nga jël fat ko sa kër di ko defal lu baax far musiba fekk la ci dafa bari moo tax léegi sax ñu bari xaw a ragal yu bari waaye wax dëgg si yàlla moom bari na ñi nga xam ne nii ñun ñoo nekk ci biir terrain bi di liggéey dañ koy def muy euh, ki euh, maman Diatta mi nga xam ne moo topp ci président action sociale seen kër dañuy am ay cas jigéen du koy jël yóbbu ko seen kër teg ko fa ñu xool nu ñuy def ba trouver solution bu dee mbokkam a ngi fi bu waxee ñu wër ba gis mbokkam jox ko mbokkam bu dee saqaala ndeyloo la ñuy woo bu ñëwee jël ko yóbbu këram moom këram moom mooy kër saqaala yi teg ko këram wutal ko liggéey muy liggéey wutal ko liggéey fanaan bu fi kanam jotee mu wàcc ñëw këram barki démb rek laa am benn kaafi fii ambassade la ñu mujje ak ñoom Baye Cheikh Gaye ñoom Youssou ñëpp fa la leen fekk dafa ñëw ci dëkk bi xam fi kenn famille ba mu daj biñ ma woowee ma tegtal leen pour ñu ñëw bi ñu balaa ñuy yegg si sama téléphone fay mun moon a jokkante waat ak ñoom mais bi ma bi ma taa téléphone bi tàkkee ma jokkanteek ñoom damaa déplacé wu dem ba fi ñu ne fa la nekk ma demee fekk ñu wuta ko liggéey ma ne wuta liggéey dama fexe di leen woo ñu ñu may fonto ma woo président Assane gàddu ko ñu dem foofu ñu yóbbu ba fa muy liggéeyee te lañ ko jëlee woon baaxul kooku ñoom jël nañ ko di ko fay lu bon mu waroon a des foofu du wàcc du dem di dukki di liggéey rek ñu ñëw ambassade lañ ko woo ñu ñëw mu defar carte consulaire ba pare ma waxaat ak patron mu dolli la mu ko doon fay te bu fekkee ne weekend am jotee mu wàcc ñëw toog sama kër ba heure liggéeyam jotaat mu dem liggéey te tey jii bu ñu ko deful woon noonu rek lay nekk foofu bu ëllëgee bu amee problème du xam sax fan lay dem te bu boobaa dañuy wëlbatikuwaat rek si ñun moo tax lu ñu yëg ci teer rek dañuy jóg ci nañ ko war a doxi def ci ndimbal gañ ca war a def